sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidina muhammadin almakin waala alihi wa asxaabihi ajmain ixwata al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala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 loolu ñooy defal tawfiix ci liggéey bu sell bi mu ne munu baaxe ñu gën cee mën a taxaw bu baax a baax eh, di soññ sama bopp rek ak di ci soññ mboolem mbokk yi nga xam ne yii yàlla defal na leen tawfiix ñu bokk ci liggéey bi ñu gën cee jublu rek gën koo foog gën cee jàpp te xam ne tawfiix la joo xam ne yii yàlla subhanahu wa moo nu ko defal ndax euh, lii mooy islaam lislaam moom mooy lépp loo xam ne nii lu baax la rek moo xam ay wax la wala ay jëf lu mu mën a doon rek yem lu baax la rek mooy lislaam nekk lu neex yàlla kon mu yàlla def leen tawfiix ñu di ci jéem a gëstu sëñ bi di ci jéem a làmb sëñ bi di ci jéem liggéeyal sëñ bi daal yooyu yëpp yal nañ ko ci defal yal nañu mu di liggéeyal sëñ bi yal nañ ci am sëñ bi yal nañ ci am ngërëmal sëñ bi di jaay sayyidul wujud alayhi wa sallam di jël néew boobu rek ak ziyaara bi ak soñña bi yëpp rek di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi jiite liggéey bi mi yore liggéey bi mu jot lu ñu ko mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu seqal liggéey bu sell bii di siyaare ñëpp nag góor ñi jigéen ñi ñëpp ñu leen di siyaare di ñaan yàlla gën ñu defal tawfeex bu baax a baax di jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw di delluwaat rek di siyaare ñëpp rek rawatina nag boroom xam-xam yi nga xam ne yàlla na leen tàbbal ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla ñu fi jàllale ay xam-xam yu am am solo am jàngale mu am am solo su nekk ku ci nekk rek boo jàllalee sa émission wax dëgg yàlla bu ñu ko digloo dañ cay yokkoo lool dañ cay am xam di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu rafet boobu di ñaan yàlla rek gën a dëgëral gën a xam-xam yi di ñëw seen i mujj sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit. di ndokkeel jëwriñ yi alxuraan ji muy sëriñ Modou Diouf wax dëgg yàlla liggéey boobu nga xam ne bii mën nañ ne moo gën a am solo ci liggéey bi ndax alxuraan moom mooy lépp wax dëgg mu di ko taxaw taxawaay bu am solo boo xam ne bu mu jox yitte la bu mu jox yitte la wax dëgg yàlla ndax noonu mu ko jiite nga xam ne saa bu ñu ko jàngee ba mat rek ak la muy xat-xat lépp nekk ci liggéeyam du teree day daal di tàmbaliwaat liggéey bi wax dëgg yàlla mosuñoo gis benn yoon mu am ci ak sooxe ci ci wàllu googu nga xam ne bi moom la ci féete loolu tamit doon tawfiix doon lu am solo loo xam ne lii eh, yàlla na ko ci yàlla gën jàppale waaye it gën ñu cee jàppale ñu ñëpp ba pëstéef boobu mu ci am ak ji mu ci am nga xam ne lu mu xar-xar rek moom bàyyi na ko xel ba saa bu ko waree tàmbale rek mu tàmbali ko loolu itam mu ne ci soññ sama bopp da ci soññ mboolem mbokk yi nga xam ne yi tamit dañoo féete ci wàll boobu seq liggéey boobu yor ci ay jukki mën naa ko wax loolu ci sëñ Moodu amee Pastef ak ak yëg-yëg ak bëgg-bëgg mu doon suñu royukaay ñun ñëpp ba euh, saa buñ ko tàmbalee rek mu doon ci ñun rek nga mën a góorgóorlu ba wax dëgg yàlla bala ñuy àgg ci bés bi nga xam ne bii moom la ko sëñ Abdoul Ahad Mbacké war a xarma kenn dootul nattale moom kaamil bi yéey jukki yëpp mag na kon daal loolu itam nañ ci gën a góorgu lu baax gën ko bàyyi xel te xam ne dafa am solo lool lool lool kon luñ ci góorgóorlu rek ci gën cee farlu ak gën cee jublu rek loolu doyut waaye tamit ñuy dellu tamit di ndokkeel di beral ziar tam suñu mag yi suñu kilifa yi nga xam ne yi ñoo ne ci biir jotaay bi ñoom itam bokk ci liggéey bi wax dëgg yàlla bu dee góor ñi la bu dee jigéen ñi la ñu gis ne seetlu lañ ci ñoo xam ne suñuy kilifa lañu wax dëgg yàlla ci fànn bu nekk ñu ne ci biir liggéey bi gën ñu koo bëgg lool gën ñu koo fonk te it dañu ci soññ saa su ne nga xam ne saa nekk rek ku ci wax rek ci ñoom kilifa yooyu rek da ngay gis ne ñi mu wax dëgg yàlla ku am yëg-yëg la ci liggéey bi ku ko bëgg la ku ko fonk la ku ci bàyyi xel itam kon loolu itamit ab soññe bu mag a mag la ci ñun ñi nga xam ne ñi ñoom ñoonu jiite bu ko defee ñoom itam ñu ngi leen di ndokkeel góor ñi ak jigéen ñi ñëpp rek di leen jot di suñu nuyoo ak suñu siyaar bu baax a baax di ñaan yàlla rek wala nga bu baax a baax liñ ci méw rek liñ ci bëgg góor ñi ak jigéen ñi yëpp yàlla defal ñu ci tawfeex ba ñu am ci lu ko suñu njortu di ndokkeel bu baax a baax na nag jëwriñu liggéey muy mu ngom ñi ngi nga xam ne mi moo ko xalaat yàlla jàppale ko ci defal ko ci tawfeex ba euh, liggéey bi taxawaay bu am solo bu taxaw am ci kon moom itam yàlla ko yàlla gën a dolli xel ak i xalaatam ak i ba lim ci yéene lépp te ñun ñuy bokk ak moom liggéey bi ñu am ci yéene jooju yàlla jàppaleñ ci liggéey ba ñu amee kowee kowee suñu jort di jay sayyidul wujuud sallallahu alayhi wa sallam ma zalika ala llahi bi aziz kon jataayu fatwa bi tey euh, laaj yi fi jot a am rek mu ngi jóge ci mbokk mi sëriñ musaa Xaar Ndiaye sëñ Moussa ñoo ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla moom itam ci ak postéefam ak bëggam lu baax wax lool liggéey bi ñu ngi baax baax sëñ Moussa tey bokk na ci ay laajam lu jëm ci wàllu nodd muy laaj ne xël lil waxtu awwali waqtun muhaddadun maanaam sëñ Moussa day laaj ndax nodd ko xam ne gii moom la ñuy wax nodd gu jëkk ñu di ko nodd ci guddi gi maanaam bu fajar jotee nee ndax nodd googu dafa dañ ko wutal waxtu woo xam ne bii dañ koo fixé mu am fu tàmbalee ak fu mu war a yem waaw loolu dañ ko naan waxtu waxtu azan al awal huwa tuluu al fajri wala yujibu al imsaaka fi ramadaana waaw nodd googu ñuy wax nodd gu dafa am wax ne fa la war a tàmbalee ndax euh, wërta gi waaye dañoo war a xaar ba nga xam ne bi fajar jot na fajar gi jot na su fajar jotee foofu la waxtoom tàmbalee moom nodd bu njëkk googu ñu koy wax nodd yeete waaye tamit bu dañu ko bàyyi mu dem ba jege euh, waxtu julli bëgg a jot ñu war a nodd nodduk salaatu ngir julli ñu di nodd bon koy bu fajar jotee daal dañu ko war a toog ab diir euh, euh, fajar julli fajar bi waaj a léegi ñu doog a noddaat noddaak ñaareel nga xam ne ko ci la julli gi di tege kon daal dee su ko def ci digg guddi gi waaye dañuy xaar ba fajar jot mu noddu noddu googu moo doon waxtu beneen laajam mi ngi laaj hal yajuuzu taxsiisu makaanin fil masjidi li ganiyin aw di jaahin aw di ilmin beneen bi day laaj ne ndax jàkka war nañu teewut ay palaas yoo xam ne dañ koy jagleel ñenn ci ñi nga xam ne dañ koy julli si mel ni ñu wut palaas boo xam ne bi dañuy gis ne kii day dañ ko ko jagale di fa jullee saa su ñëwee ci jàkka ji ngir moom boroom alal la walla koo xam ne kii dañ ko wutal palaas ku mu jagoo wala mu di ko wutal boppam di fa jullee saa su ñëwee ngir ne moom kat dafa am daraja wala mu nekk boroom ak xam-xam loolu daal lay laaj ndax daal jàkka daal kenn war na fa wut place boo xam ne bii da ko jagoo nga xam ne yow dong yaa fay ko wax ne laa yajuuzu zalika illa li zi ilmin yumkinuhu tanbihul imaami ida saha wa yuqawimuhu isa tawaqafa anil xiraati li nisyaanin nee nañu loolu moom doonul loo xam ne lii lu ñu maye la doonul loo xam ne lii lu dagal la maanaam wut béréb boo xam ne bii dañ naan kii kat diw sàngam moom moo fi jullee ngir moom dafa am alal wala dafa am daraja wala borom xam-xam la maanaam loolu moom mayewuñu ko maanaam daganaluñu ko rawatina nag su ko ci kenn ci ñoom tànnalee seen bopp nga xam ne kii dafay gis ne fii moom moom rek moo fi war a jullee bam jaral ko sax bu gisee ko fa toog mu yëkkati ko di ko toppale walla su ko toppalee itam maanaam mu di ca gis boppam ci foofu mu doon toog di fa jullee te keneen ñëw fa jullee yooyu yëpp daal lu ci mën day am ñooy moom duñ ko maye ci biir jàkka loolu ni nag foofu nga xam ne fi béréb la wax ne dañ koo jagalee bu doon borom xam-xam boo xam ne bii maanaam ku mën a jiite la comme ni imam ji jiitee te mu man mu nekk koo xam ne kii su imam bi juumee wala mu dem ba maanaam mu mën koo ngàntan bi wala bu imam bi dee mu mën te àggale julli gi euh, mu su boobaa daal ku mel loolu moom dañ ne sopp ko nañu maanaam ñu nekk te sax su dëkk te nekk ci ginnaaw imam Eh, bu dee ku mel loolu la maanaam ku mën a defar julli ga su ca ay jafe-jafe amee fa yustahabu an yakuna fi safi lawali eh, xalfal imam liman lahu qudratun ala itmaami salaati ida ajiza al imaamu an itmaamiha dana kon dañuy sopp dañuy bëgg itam tey day gën eh, sàppe su jëkk sa ña fay nekk noonu nekk yoo xam ne ni dañu am kàttan ak maanaam dañu am manam man manam su imaam bi demee ba mënta mottali julli ko ñoom ñu mottali ko waaye euh, place daal de su ko jagleel nit ci biir jàkka ngir ca yeem waxal ngir ne ci euh, lu dul nii day doon boroom xam-xam boo xam ne yii su imam ba gage daal mu mën koo gaganti waaye su imam ba demee ba it mënta àggal julli ga mu mën koo àggale beneen laajam bi mooy ñetteel bi day laaj hal yukrahu tafsirul xutba bi bi xayril arabiyati day laaj ne ndax xutba bi ñuy def ci julli ga ak juma te muy doon arab ndax sim nañu maanaam ñu koy firi beneen làng ci lu dut arab waaw ne fal xutbatu yajibu an takuna bil arabiyati awalan waaw dañ naa xutba moom euh, faw dafa war a nekk arab maanaam jàng ci bésu julli gi maanaam war a doon arab maanaam mu wax ko ci arab bi ba pare wala yukrahu tafsiruha bi lugatin uxra waaye tamit suñu ko waxee ci làngu arab bi ba pare dem maanaam sideesut bañu bañu ñu mu firi ko ci beneen langue boo xam ne bii ñay julli si julli ajjuma ga moom lañu dégg bal yustahabu tafsiruha baad al arabiyati bil lughati allati yafhamuha al musalluuna nee na sax dañuy bëgg dañuy sopp imam bi jiite bu jàngee ba boobu ci arab bi ba pare ñi nga xam ne ñu dañoo ñëw di julli si làng wa nga xam ne moom la dégg nga xam ne su ñu ko ca waxee ñu xam li xutba bi doon wax ne ne euh, boobaa imam bi su jàngee arab bi ba leen koy waxal ci seen làng xam ne ñu dégg ak làng wu mu mën a doon nag dañ ne léegi daal sopp nañu bëgg nañu soo jàngee arab bi ba pare muy xutba bi bu dee ni séréer la bu dee ay tukkuloor bu dee ay pël même bu dee ay français dong lañ dégg wala ay anglais ak langue bu mu mën a doon dañ ko xam ne soo ko te waxee ñoom ñu dégg ko xam li xutba bi wax su boobaa dañuy ko te nag na jiital jàng ko ci arab bi ba noppi na ñaanal ba nga defal tawfiq jër daa yoo